waaw ah, match bi moom lu ma si sama xalaat moom match yi joueurs yi baax nañ football nañ lu nice xam nga te équipe bi moo gis na moom bu ñu teggul seen tànk moom mën nañoo jëlaat coupe d'Afrique bi quoi. satisfaction laa ci am satisfaction la ci sénégalais yëpp am mu doon euh, loo xam ne bon du mbetteel la parce que c'est un long processus la boo xam ne travail d'équipe la boo xam ne Aliou Cissé mënee na ko jëmee ko ci équipe nationale bi bon y beaucoup de critiques nag début bi mais boo xoolee fi ñu egsi nii tey jii nii di nga xam ne fiiwu long travail la. première mi-temps bi man gis naa ne Sénégal daal ñoom matal nañ li ñu waroon matal lépp comprendre nga nañ joué nañ seen match daal commencement bi ba fin loolu moo tax ba surtout ma ki ki nga xam ne moom laa gën a kontaan si match am mooy euh, Sadio Mané Sadio Mané mi ngi doon joué. comme comme comme comme joueur bu mag ni mu war a def ni mu war a téye équipe am responsabilité bi mu ñëwee daf ko matal ba mu mat sëkk man daal awma lu ma leen di critiquer. Cameroun bu njëkk ba ñoom dañoo boor song mais boo xoolee match bi Sénégal dafa dafa souffrir ci biir ci biir match bi parce que Camerounais yi même bu fekkee ne ñoo leen mën mais bàyyiwuñ yombaluñu ko boo gisee bal bi day dem gauche day dem day dem day dem gauche di ñëw droite du taxaw sans répit alors que bu dee Gambien yi dañuy bàyyi bal bi tuuti ñoo ñoo taxaw seen camp. bu ko defee ñu ñuy ñu ñuy chercher euh, profondeur yi di chercher di dem seen camp ñoom mais bii nii boo xoolee Cameroun yi may ñu loolu dañ ñu rek songuñu xaw nañoo joxe soo tuuti ci début bi mais am nañu maitrise boobu dellu si waat xam nga ba mën leen a dominer ba dugal leen dugalaat leen ñoom ñu égaliser ñu fekk leen fa donc loolu mental la quoi bon en plus loolu yombul ci équipe nga mun a am euh, ñëw rek ñu ñu changer euh, système de jeu bi Cameroun yi ñu yaakaaroon dañuy xaar ñoom ñu ñëw songuñu nga génn ci loolu yombul quoi foog nga doon équipe boo xam ne da ngaa yàgg a compétir te boo gisee booy yi dañoo déggoo ci seen biir am na harmonie am na lépp moo waral lii tey jii nii victoire bi yomb si ñoom. nañ ñaanal joueurs yi joueurs am jàmm ah nañ bàyyi critique bu metti bi parce que supporter pour jouer pour sénégalais moom dafa metti parce que sénégalais da ngay gagné ñu wax nga perte ñu wax comprendre nañ ñaanal joueurs yi joueurs yi am jàmm blessure yi nag ah looloo gën a metti ci joueur. Ah, nañ ñaan rek Sénégal am ndam jëm ci kanam. xam la lañ xam match bi nu mënti demee yow gañeel rek leneen lu ñu wax ñu defar ak ñu kii ko après. parce que lenn benn affaire rek laa gis mooy Aliou a 2-0 match nga bëgg a jéene suñu mëneur yëpp teg leneen dañ see dal jéen si nii mais mënoon na jën a ñaaw mënoon ñoo def 2-2. voilà loolu rek moo ci sama xalaat wax dëgg fa yàlla équipe moom amul benn problème Aliou Cissé daal na xoolaat taxawaayam bu baax a baax a baax a baax a baax. parce que nit ñi maa ngi leen di dégg ñuy critiquer Aliou Cissé di wax naan Aliou Cissé ni mu dugalee kii baaxul ni mu defee kii baaxul man li ma li ma ni ma ko gisee rek mooy def na li ko waroon comprendre nga dugal na joueurs yi nga xam ne ñoo mën a jouer def na ay remplaçants am ni mu ko waroon defee man daal Sénégal ci kanam. ndam rek. départ bi baax na deux matchs deux victoires six buts euh, attaquants yi dugal milieu de terrain yi dugal loolu la ñuy laaj ci équipe équipe bu attaquants yi dugal milieu de yi di dugal maanaam seenu si bu baax la quoi liy bon ci équipe mooy défenseur bi jóge fee dugal attaquants yi mënuñoo dugal loolu baaxul ci équipe. donc comme que attaque milieu de terrain ñu ko dugal deux milieu de ñoo dugal bi passé trois milieu de terrain ñoo dugal trois attaquants ñoo bii nii donc ñuy ñaan bii di ñëw yeneen trois attaquants dugalaat. te j'ai vu une ci équipe nationale bi benn harmonie ban harmonie mooy la fait que anciens yi nangu pousse jeunes yi jeunesse bi di football ñu ne di encouragé nangoo toog ci banc ku mel ni Gana ku mel ni Cheikh Kouyaté ku mel ni ñu bëri ah, nangoo toog ci banc bi di encouragé booy instant bi aw ma dara lu ma leen di critiquer quoi wante sama booy bi nag nañ ko ñaanal mu am jàmm mooy lamin Camara xale la comprendre nga première match bi mu duggee. joué na match bi gérer li mu war a gérer wante wax bi dafa bëri nañ ko ñaanal mu am jàmm ah di ñaan tamit prochain match mu ñëw taxawaat gérer li mu war a gérer. bat loolu tamit seen raisonnable loolu baax na parce que tey jii boo xoolee tey jii boo boo leen dugal ku si nekk doo xam li nga mën mais c'est normal tamit ñu am bi le deuxième match may booy seen sens ku si nekk ñu xam ne lii mooy sa défaut ak lii nga mën xam nga amul lu ma li si wax baax naa franchement baax na amul benn problème. non supporters yi moom moom gàcce nga laama quoi parce que ñoom duñ bàyyi quoi ñoom dañoo gëm seen bopp fu ñu nekk dañuy wane ne ñoom ay sénégalais ngi supporter lu neex nekk ci tribune bi xam nga lu ne lu wax waaw douzième gaynde daal amuñ morom quoi wax dëgg fa yàlla loolu la amul lu may wax jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñu doon seetaan Senego TV Senego point com comme ni leen ko jigee woon chaque match Sénégal danañ jël suñu micro tàllal doomu sénégalais yi yeewee fii ci New York fii ci Harlem ñu wax ñu nan lañ gisee match bi gis ngeen micro trottoir bu am solo bi ñu leen defal tey gannaaw mats bi doxoon ci diggante Sénégal ak Cameroun Sénégal mujjee gagné ñetti bal ci benn mu nekkoon seen natango Seydina Aliou Ndiaye New York pour Sénégal TV